وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بكم من نعمة فمن الله mbokki jullit yi mbokki daara yi mbokki Sénégal ak diaspora bi mbokk yi wéttalikoo seen télévision Tawhid TV te topp seen émission bi di Alhuda di émission bi it téere borom bi subhaanahu wa taala ci télévision bi seen mbokk Abou Taha Mouhamed Alioune Guèye di leen ko indil aljuma nekk ci waxtu wi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baal ñëpp koy balu di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla ñàlla boole baal mbokk julli di saa bu ñu ñëwaan ci émission bi di ngeen ko xamee daañu jël benn barab wala jenn laaya wala aw saar ci alquranul karim jàng ko jàngat ko génn ci njariñ jëm koo jëriñoo waaye bokk ak suñuy mbokki jullit Eh, aljuma ji wees eh, àndoon nañ ak eh, sunu sëriñ ak cheikh docteur sëriñ Ilimane Ndiaye doon jàngat qissatu Suleymaan alayhi salaam ci suuratu an-naml waaye bi ni jeexal yi ngeen ni waxtu weñ njattoon waaye yu bare bari yu ñu bëggoon a yu ñu bëggoon a bokk jëriñoo ak suñu mbokk julit desoon na ci biir qissa bi ba junñoon naa leen ni li jiwa jeexal jugu fa looloo tax ñu tàmmoo dellusiwaat ci aljumay tey ji incha allahu sof ca fa ñu yemoon ci xisatu Suleymaan ba tey ngir ni ci saar woowu am na lu bari bari lu fi des waaye suratu saba tamit bu ñu fa delloo am na lu fa nekk loo xamante ne am na ak lëkkaloo bu baax ak euh, la ca suratu xasas ndax lépp rek daa dellu ci xisatu nabiyillahi Suleymaan euh, dañuy doyloo présentation bi ñu amoon aljuma ji wees ma fàttali leen rek ni mooy docteur Serigne Ilimane Ndiaye euh, jàng dëkk Touba nekk fii ci Ndakaaru doo fi am njàngam Eh, dem Mauritanie fore fa dara waaye tamit demal jami islamia bil madinatul munawwara fa la wéy la am jàngam yàlla dogal ma am doctorat dellu ci réew mi mi ngi ci jàng ak jàngale ak di yëngu ci mboolem xeeti eh, xeeti jotaay yi nga xam ni nit ñi daañ ko jëfandikoo ngir ad daawatu fi sabilillah jiite école bi di ar raja ak masjidul raja ci wet gi docteur ñu nuyu la incha allah dugg ci kàddu gi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa wa barakatu ñi leen di fay al cheikh abou taha mouhamad ali di sant leen sant bu baax a baax di sant tam télé bi di rafetloo tam jataay yi ak ni muy doxe di ñaan yàlla subhanahu wa taala li ñu ciy wax lépp nekk njariñ ñeel ñu ak mbooleem jullit ñi yàlla saxal ñu ci ak njub ak baax ak tasaare ko eh, jërëjëf Cheikhna eh, waxtaane woon nañ fi qissatu yonent yàlla Suleymaan ci suuratu saba ak ci suuratu namli kon Eh, bi nuy daaneel ni ma ko junjee sànq yéegoon nañ ni wax dëgg yàlla dolli ci beneen jotaay ngir gën a yaatal waaye xëcc ci yeneen tomb yoo xam ne lëkkaloo ak moom donte ci yeneen saar la day baax noo ngi taxe woon keroog daanaka ci fi Balqiis wuy see Suleymaan waaye yëg ni moom yoon moom nekkoon du woowa ndax yoonu jaamu xéram la ak jaamu leneen dul borom bi subhaanahu wa mu dugg ci eh, fësal kàddu aslamtu maa Suleymaan lillah rabbil alamin bu ñu bëggee dale foofu gan eh, ci ak ñëwam dugg seem ci diine tawxiid bàyyi lépp loo xam ne shirk la ak yenn njariñ la ci mën a jëlee ci ki nga xamante ni def na lu mel na waaw bisimilah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ni ngi ko waxee jataay bi jàll ñu ngi doon jàngat leen ci aaya yi nga xam ne moo ñëw ci sotu namal ci aju ci xisat suleyman nabiyullahi suleyman alayhi salaam rawatina li doxoon digganteem ak uh, malikatu saba te lenn ci boroom xam-xam yi tafsir yi di wax ne mu ngi tuddoon Balqiis tudd tam lenn ci ak ñawam mm-hmm. moom buur boobu mm-hmm. ak yi nga xam ne moom la séq ak Souleymane kenn ku nekk wan wan sa moroom ak ñaw waaye laa chaque ne Souleymane mm-hmm. moo ko gën a ñaw ndax moom ab yonent la la nga xam ne moo am ci leetar ba waxoon nañ ci ak nam fonke leetar ba ak nim ci diisoo ak na mu waxee ne nañ essayé ndax ñe ñi àndaloon ñoom dañoo jàppoon ne lépp rek ci wàllu force lañ ko war a mën a faje ñu ne ñun pare nan suñu soldaar bëri nañ suñ matériel doy na suñu gànnaay doy na ci itam borom yi kàttan lañ kon ñëw sa ndigal rek la ñuy xaar waaye teewul mu ne déedéet loolu du yoon wi ndax bu fekkee da ngay dajeeg ku la ëpp doole bu la bu la gañee boo moytuwul sab dëkk dana ko yàq te dana soppi ñi nga xam ne ñoo fa gënoon a tedd mu def leen ñu nekk ñu torox wala bi yonent la dama koy yónnee addiye loolu waxoon nañ ko ci dars bee jàll bi mu demee ba mu delloo addiye ji ci la xam ne kon kii ab yonent la ci muusam akum xelam akum ñawam mu xam ne kon li des mooy na def ab délégation moom ci boppam dem seetali boppam mbir moom lu mu demee bi mu ñëwee itam far gis ngeen eh, mu ñëw fekk fa gàngu naa gem daan toog muy chaise ba mu ne ko a hakada arshuki waaw ndax nu mel nii ni la sa chaise ba mel gis nga néew ko ahada arshuk kon laaj bi sax comme ni ma ko junjëwoon ci dars bi passé wala ci jataay bi passé eh, amoon na am na am na pièce bi ci nekk waaw new ko ndax lii mooy sa arsh bi waaye def na ko ma ngoog na taale na ba ba ngi natt na ñëw ko malikat eh, saba ma ngoog ahakada ndax nii la mel xam nga bokk tëgg ndax lii la dëgg la waaw mu ne ko ka moom tam mu tontu ko tontu boo xam ne buy gam-gamle la buy wanee tam xel mhm. mu ne moom de sax daa mel ne moom mii la waaw waaye nag mhm. précisé wul ne moom la mhm. waaye itam dàq ko moom daal nee na ka annahu ndax li tax mu wax loolu mooy ne moom na booba mel nii la bii mel la ko ci jaaxal rek mooy soppi ki nga xam ne moo ci jot jaar moo tax mu mu yemale ko noonu ci digg bi moo ko ci def ngir natt mu nga ngir natt ko waaw kon eh, yooyu yëpp daal ba mu fa gis kawtef yu fa gis ndax wax dëgg yàlla béréb ba nga xam ne fa la chaise boobu jógee ñëw fekk si Souleymane ci diggante bu gàttee noonu ak coppiku ga ga nga xam ne moo ci am yooyu yëpp moom borom xel la ak li mu gis yàlla defal Souleymane ak ni ko Souleymane yëgadee nga xam ne li li ko gën a li gën a rëy ci moom mooy ngëm yàlla gi ak topp yàlla gi ak wéetal yàlla gi loolu mooy li nga xam ne moo ko motivé ba mu dugg ci diine ci mbaaxu yàlla ci la wax ne aslamtu nafsi ma aslamtu ma suleymaana lillahi rabbil alamin waaye xoolal ma tawxid bi ni mu ko teel a amee ca nam gën a kawee looloo tam mbir la moo xam ne mu mat jàngat la mooy wane ne tawxid lu am solo la mooy buntub mucc ci doomu aadama ku bëgg a mucc foo jaar am tawxid foo jaar wéral sa pas-pas ba nga xam ne yàlla rek ngay gëm yàlla rek moom ngay jaamu yàlla rek mooy ki nga xam ne moom ngay yaakaar yàlla rek mooy ki nga xam ne moom ngay ragal loolu moo feeñ ci xissa bi déggum dégg tawxiid tam ndax ñoom dañoo déggul baatub laa ilaha illallah li muy tekki moo tax ba mu demee bay tuub newul tuub naa ci yow waaye def ne ànd yow tuub ci yàlla nga xam ne moo nu moom loolu li nga xam ne moo dafa mel ne moo xaw a raaf ci jamono jii ñu nekk ndax bu njëkk ku faaru Quraysh li taxoon ñun lànk wax baatub laa ilaha illallah danoo xamoon li muy tekki ajaala al alihata ilahan wahidan inna hada la shay'un ujab ndax yàlla yëpp da koy effacé gëmloo ñu rek benn yàlla ña xamoon nañ ñoom ko wax laa ilaha illallah li muy tekk mooy waratoo jaamu keneen ko dul yàlla waratoo yaakaar keneen ku dul yàlla waratoo ragal keneen ku dul yàlla yàlla nga war a bàyyi si lépp te loolu ñoom pare gun woon pour def ko ndax ñu ngi dese woon ay xiram ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dañ koy jaamu jàpp ne yooyu dana leen jëriñ ànd ak nag ñoom gëmoon nañ yàlla waaye dañ cee boole di ko bokkaale di ko bokkaale ak yeneen moo tax wéetal yàlla mhm. day feeñ bu baax a baax ci xisat Suleymaan mhm. alquran nag buñ koy jàng dañ koy jàng ngir tibb ci mhm. njëriñ yooyu ndax loolu mooy hidayatul quran al karim mooy hidayatul quran yooyu la alquran di gindee jëmi ci moo tax itam borom bi subhanahu wa taala nettali nu xissa boobu ak li ci nekk ci wéetal yàlla ak nit ki ni mu war a wéetale yàlla subhanahu wa taala ak bu déggee dëgg mu nangu ko bañ a rëy rëylu waaye xam ne lii dëgg la def ko loolu mooy li nga xam ne. incha allah tom bu am solo kon duggin wi ci sof fa ñu taxaw woon ak fi ñu war a dooree. am na solo loolu mi ngi woon ci suuratu an-naml euh, liñ jàngat li ci ëpp jotaay bi passé foofu lañu nekkoon Cheikh naa dañuy toxoo foofu ñëw ci suratu saba am na lenn lu fi borom soo saala tudd loo xamante ni dafa aju ci euh, qissatu yonent Yàlla Suleymaan suratu saba mbokk mi ñu topp euh, mi ngi nekk ci diggante suratul ahzab ak suratu fatir di la saar 34 ci tartibul mushaf maanaam bu ñu tàmbalee Fatiha mooy tomb rek 34 euh, boo weesoo suratul ahzab moom nga ci daj boo ko weesoo nag doo ko daj Fatir euh, ak Yaasin borom subhanahu wa taala am na lu mu fa tudd ci qissatu yonent yàlla Suleymaan mu tàmbalee ci wala Suleymaan ar na ghuduwuha shahrun wa rawahuha shahr Euh, foofu ñu dale lan lañ fi mën a jàngatee. waaw xam nga yonent yàlla Suleymaan mhm. daa bokk ci yonent yàlla yu màgg yi nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala tudd na seen xissa mhm. ci saar yu bëri. Mhm. ci alquranul karim mu ngi ci suratul namal mu ngi ci suratul qasas mu ngi ci suratul saba tey ji am na sax yeneen saar tam yu ngi ko tudd lu mel ne suratul saat wahab li mulkan laa yambagi li ahadan min di loolu mooy wane ne kon bu bu màgg la bokk ci ay jaloorem ak yenn ci ay kiimaanam ak yenn ci ay kawtéefam mu nekk tam yonent boo xam ne dafa am lu mu jagloo jagoo muy ne moom dafa amoon nguur goo xam ne yàlla ma yàttu ko kenn bokk na ci nguur googu ak magaayu nguur googu mooy yàlla da ko tàqa tàggataloon ngelaw ngelaw ci boppam nga xam ne da koy jëfandikoo nu mu ko soobe fu mu bëgg a dem ngelaw li mooy li nga xam ne mooy ñëw taxaw dajale mu daal di jël basang wala li nga xam ne moom moo nekkoon mooy ba mu daan ca teg teg ko ca moom ñamuy àndal mu yóbbu leen fan jëm ci diggante boo xam ne bu gàtt lay doon ndaxte suñu borom subhanahu wa taala li mu wax ci aaya bi wali suleymaan riix nee na tàggatal naa suleymaan ngelaw riix nag ak riyaax comme ni ngeen xamee ci alquranu karim lenn ci borom xam-xam yi wax ne riyaax buñ ko jamoo muy ngelaw riyaax buñ ko jamoo mooy wane ne ngelaw lu jóge ci côté yu nekk la maanaam yërmaane lay àndal moo tax wa arsalna riyaax la waaqix saa ñu tuddee riyaax rek ci alquran karim xamal ne lu baax la lay àndal waaye riix nag moom léeg-léeg bu ñu ko tuddee ci alquran day ànd ak mbugal waaw riixan fiha adabun si riixan sarsaran adabun alim tudammiru kulla cheyin bi amri rabbiha ndaxte riix buñ ko waxee liñ ko ifraat mooy wane ne ci benn béréb la jóge jëm fenn mooy li ñuy wax léegi insaar ci làkk bu bees nga xam ne day am doole dara du ko. dara dara dara du ko contrer. dara du ko moo tax day am doole te lu mu ba moytu lu nekk ci kanamam mën na ko yàq garab yi sax da koy dem ak di ko dagg ak di ko daj. Mm-hmm. waaye nag borom bi subhanahu wa taala riix bi nga xam ne moom la defal Souleymane riix la boo xam ne buy ñëw la ngir bu tàggatal Souleymane la ngir mu koy doxal ay soxlaam waaye nekkul boo xam ne buy lore la. moo tax mu ne ko duwuha shahrun mm-hmm. wa rawaahuha shahr maanaam li muy daw moom ngelaw li dawub weer la waroon nekk mu def ko ci dawub ab yor yor wala lu gën a néewub yor yor bu dee ngoon gee tam dawub ak ngoon la waroon nekk luy toll ak euh, maanaam weer daw luy toll ak weer lay daw tam ci ab euh, ci euh, ak ngoon ca boo gisee ngelaw loolu su borom subhanahu wa taala mesalaat na ko ci beneen saar mu ne ruxaan xaysu asar yaakaar naa wala ambiya wala suleymaan reexa waaw suratul anbiya tajri bi amri ruxaan ruxaan mooy mu ànd ak jàmm ak salaam ci raxaa la jóge kon mooy won ne nekkul ngelaw loo xam ne luy lore la ngelaw lu am doole la mhm. ngelaw luy gaaw la mhm. waaye nag nekkut ak loo xam ne an ant ak ay ant ak dara loo xam ne luy métti la mhm. mu nga ruxaan baat boobu moom la borom bi subhanahu wa taala foofu loolu bokk maanaam jagle yi nga xam ne moom la yàlla defal yonent yàlla Suleymaan ci nguur gu màgg mm-hmm. nguur goo xam ne yàlla subhanahu wa moom rek la ko defal musu mm-hmm. ko defalaat keneen mm-hmm. defalaatu ko keneen comme na mu ko ñaane wa asal naa lahu ayn al qitr yàlla subhanahu wa ba tey euh, yombal ko yombalal ko mu mën a euh, maanaam seeyal wala sooyal li nga xam ne mooy no euh, nuxaas te mooy nikkel xeeti mball yooyu nga xam ne muy génn ci doj doj yi ak ci suuf yeeg yi mel noonu mm-hmm. yàlla subhanahu wa taala defal ko ci mu mën ko sooyal ñu ko jëfandikoo ca nam ko bëggee mm-hmm. loolu mooy li nga xam ne moom la borom bi subhanahu wa wax fii mm-hmm. wa min al jinni ma yaamalu bayna yadayhi bi izni rabbi ba tey jinne yi dañ koy liggéeyal li mu bëgg lépp ci kanamam mu toog di superviser di xool ñu koy defal li mu bëgg di ko tabaxal ñi mën a tabax tabax ñi nga Eh, nuur ci biir géej gi dem di nuur yi di ko indil jawaahir ya fa nekk mhm. gànjar ya ñi nga xam ne bu bëggee baylu mhm. am na ñu cay bay mhm. lu mu bëgg a def rek ñenn ñi nekk ci arme bi eh, nguur gu yéem yow nguur nit ñeeg jinne yeeg ñëpp kenn ku nekk ak lam lay liggéey la moo tax nguuram misaal la woon ci ak tafawuq al umraani muy wàllu li ñu wax maanaam fi ni nii eh, ak civilisation gu mag a màgg la la ko yàlla mayoon ci jamono yooyu ànd ak nag diine civilisation boo xam ne ci diine la taxaw ndax danañ ci xamoon nañ ci dara ci euh, euh, malikatu saba ba mu ñëwee ci pale ba gis nga pale bi daf ko liggéey liggéeyin boo xam ne mhm. booy dox ci pale bi mhm. nga xam ne li naroon li waroon nekk karo yi dafa mel ni ci ndox ngay dox te fekk déedéet daa def ak géej muy dox ci ron pale bi wala ndox la fexe ba indi ko mu nekk ci ron pale bi dox ba nepp mu jël benn xeetu euh, maanaam zujaaj muy weer. weer bu dëgër. boo xam ne dafa nekk safaaf dafa leer naññi. Mhm. mu teg ko ci kaw nga xam ne mooy nekk. fi nga xam ne fi la nit ñi jaar day mel ne cim ndox ngay dox sax ndax weer bi du feeñ day mel ne nekku fi. waaw weer bi day mel ne nekk fi ne am na ay hôtel yu koy jéem. am na hôtel yu koy jéem. man <laughs> ne am na hôtel boo mu boo waaw ndeke ñoom booba passé woon nañ sax foofu. loolu waral bi Balqis dugg see kon mel ni ku jaaxle. moom jaaxle daal di waaw moom damay wax ne kuy xusul la lahaa duxuli sarxa falammaa ra'athu xasibathu lujjatan wa kashafa ndox la weer bi du feeñ. ndax li shiddati safaa'ihaa day mel ne ndox rek moo fi nekk. subhaanallah loolu day firndeel la nguuram góorug Souleymane ak góorug Mag. puuf ndax ñooy fekk na fa ci ligg si loo xam ne moom en tant que buur jaaxal na ko. jaaxal na ko yëm na ko yëm na ko. allahu akbar naam. waaw waaye koo xam ne jinne yeeg ñëpp lay liggéeyal. <laughs> waaw <laughs> subhanallah ak borom xam-xam yi nii ñeeg ñëpp. yàlla tàggatal la lépp. ba ci mala yeeg ñanaaw yeeg yooyu. kon nguur gu màgg a màgg la ko yàlla mayoon. <laughs> jinne yi di liggéey mbay na yadayhi bi izni rabbi wa man yazigh minhum an amrihi an amrina naziqhu min adabi sair ci mm-hmm. képp koo xam ne rek lànk nga ci la nga xam ne moom lañ lay digal mm-hmm. suñu borom subhanahu wa teg la mbugal mu métti waaw parce que an amrina bi ñenn ñi dañ ko delloo ne damir bi damiru sha'n bi wala damirul azama bi mu ngi dellu ci borom bi subhanahu wa taala mm-hmm. yàlla subhanahu wa taala ci boppam moo koy daal di teg dara loo xam ne mbugal lay doon moo tax kenn du sañ bañ lépp dañ koy def na nga xam ne noonu leen ko Suleymaan digale alayhi salaam uh-huh. mm-hmm. ci nguur googu nag ci leen euh, def ay mbir yu màgg yu rëy yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala saxal na ko ci alquran karim mu sax ba abadan muy yaamaluuna la maa yachaau min maharib nee na koy tabaxal lu ko soob ci ay mahraab mahraab nag dañ ko wax jublu ci palais muy dëkkuwaay bu yaatu danañ koy wax tam jubluwaay jublu ci bérébu jaamukaayu yàlla waaw kullama daxala li mu jublu mooy bérébu jaamukaayu yàlla léegi si suñ jamono ji ñu ngi ci jublu béréb bi nga xam ne ci la ci la imam taxaw te léeg-léeg ñu koy defal sipu rond rond bu xaw a bu bu gàtt mm-hmm. waaye mm-hmm. Euh, baat bi gën naa yaatu loolu baat bi dana dañ ko firee palais dañ ko fiire jaamukaay bërëb bu jaamukaay yàlla mm-hmm. wa tamasil dañ koy defal tam ay ay tamasil te mooy ay istati léegi nag foofu borom xam-xam yi wax nañ ci lu bari am na ñu ne istati dafa nekkoon loo xam ne dafa dagganoon ci jëm boobu ndax esthétique boobu defuñ ko woon ngir jaamu ko mais dañ ko defoon ngir ngir mu liggéeyal leen dara parce que ñoom dañ daan def loolu dañ ko daan rafetale seeni pale palais maanaam palais bi bu buñ ko defaree ba pare balkon yeeg yi mel noonu dañ koy def ci genre statue yoo xam ne day imaam mu yore mala euh, melokaani mala wala sax melokaan doomu aadama mel ne dafa sëgg nii ñu jël balcon bi teg ko ci mu mel ne lu ko yanu nga xam ne day mel ne lu rafet bu ko nit ki gisee uh, uh, wala mu nekk euh, maanaam netaalu euh, yeneen xeeti rab yoo xam ne yu rafet la mu mel ne mooy yenu tabax bi mm-hmm. fekk ab netaal la mm-hmm. waaye nekkul woon loo xam dañ ko yett ngir di ko jaamu nekkul woon ko yettu jubluwaay bu tax lislaam tere ko ñoom amuñu ko ci déedéet booba amu ci amu ci woon moo tax borom bi subhanahu wa taala ko fii ko teg di ko jaamu waaw nekkul woon loolu effectivement yàlla dafa saxal ni Souleymane ci tawxid la nekkoon ci la doon woote kon xel du nangu mu am ay tamasil yoo xam ne dañ koy dañ koy dañ jëfandikoo ci leneen <laughs> lu dul wéetal yàlla <laughs> wa jifaanin kal jawaab jifaan mooy ay ndab jawaab ndab yoo xam ne dafa rëy ba mel ne jawaab jawaab nag maanaam eh, xeetu mbalka la rek daanaka mel na ne mbalka la mm-hmm. waaw yi dafa rëy rëy ba mel ne ay ay mbalka mm-hmm. waaw wa quduurin raasiyaat ak ay cin yoo xam ne mm-hmm. sax fa nekk fa la sax maanaam kenn du ko toxal ndax rëyaay ba xam nga léegi cin yi mel noonu mi ngi tàmbalee am ci eh, maanaam eh, kii yu maanaam nu ñu koy waxeet sax Euh, boo demee ci yenn restaurant yu mag yi mm-hmm. ak yu mel noonu seen euh, waañ yi waañ yu mag yu bees yi moderne yi day gis ne xeeti cin yu too xam léeg mooy ëpp sax tabax bi waaw day mën a togg lu bëree bëri waqo dóoril rasiat nekk moom Souleymane moo ko njëkk ndax ñi doon ñi mu woon jifaanan kal lañ ca war a yekk moom noonu rek la noonu rek la mën a togg <laughs> mu nga que ndax ñam doon war a ñi mu daan leel moo bari yaa ngi war a leel nit ñi war a leel jinni wala leel euh, tuyóor yi ña eh, ndeg ment yeeg lépp mm-hmm. te moom dafa tabe woon wala te bokk nañ ci liñ tudd ci ay melokaanam mm-hmm. moom suleyman alayhi salaam mm-hmm. yonent yàlla suleyman imalu ala daawuda shukra jëf leen yéen waa alu daawud parce que daawud mooy baayam te ci moom la doon ne nguur gi moo tax borom bi subhanahu wa taala delloowaat mbir ma ca cosaan la mu ne imalu ala daawuda shukra waaye boobu ci jamonoy suleyman lay wax maanaam jëf leen ngir sante ko yàlla subhanahu wa taala ci xéwal yi mu leen defal xéwalu wéetal yàlla xéwalu euh, man àdduna ak moyens yi ngeen bëgg yëpp yàlla yombalal leen ko ngeen am ko mu amee ko na ngeen ko bëggee na ngeen kon sant yàlla subhanahu wa taala ci seen i jëf foofu baatub sant shukur ak hamdu comme ko boroom xam-xam yi waxee am na côté yu nuroo am côté yu wuute waaw dana wax ne maanaam dafa am côté boo xam ne ci cant moo ci gën a yaatu muy ci cër yi koy def. ban ban baat moo ci gën a yaatu. sukkur sukkur ah. day nekk ci làmmiñ mm-hmm. di nekk ci xol. Mm-hmm. di nekk itam ci cër. moo tax yaamalu aala daa wala sukkuran kon sukkur. Mm-hmm. nit ki dana sukkur ci jëfam. dana sant ci jëfam ci na muy jëfi alal ji mu def ko ci fu neex yàlla. lam lekk mu reesal ko ci lu neex yàlla. Eh, di def ci lu neex yàlla ci alal ji nga xam ne moom la ko yàlla defal ak man-man yi. loolu ci sukkur la bokk da ko wax itam ci làmmiñam fu mu toll maa ngi sant yàlla moo ma defal lii moo ma defal lii loolu itam ci sukkur lay dugg xol bee itam di sant loolu itam ci sukkur lay bokk na ko waykat bi wax afadatkum an-ni'ma'u minni salasatan qalbi fi'li wa lisaani wa damir al-muhajjaba ah. afadatkum an-ni'ma'u minni fi'li wa lisaani wa damir al muhajjabaat fi'li mooy samay jëf maanaam li ngeen ma defal ci ay xéewal dinaa ko sant ci ñett yi yëpp ci sama jëf ak sama làmmiñ ak sama xool bi nga xam ne moo nëbbatu kon lool mooy sukkur bu dee alhamd nag alhamd moo gën a yaatu ci sababam ci sababam waaye gën a xat ci cër yi koy jëfe ndaxte sukkur danoo wax ne toujours dafay am sabab bu bees boo xam ne ci la nit ki defe sukkur bu dee xamdu nag moom sababam moo gën a yaatu moom dañuy sant yàlla ci xamdu ci gu bees ak sax koo xam ne yëgun ko ne bees na sant dañuy sant yàlla subhanahu wa ngir ak matam ay melokaanam yu mat ak ay turam yu rafet loolu ci boppam moo tax mu yeyoo sant boo moo tax euh, baatub alhamdulillah sunu mag ñi daan ko firee daan ko fiire mboolem mbooti mbo xeeti cant yi ñeel na allah mu yàlla ngir lan ngir ak matam rabbi moo tax toujours boo gisee alhamdu boo ko gisee rek dañuy indi turu yàlla teg ci léeg-léeg sax ay turu yàlla yu bari moo ci topp wa qul alhamdu lillah alhamdulillahi rabbil alamin wa hakada loolu foo ko seetloo ci alquran rek da ngay gis ne alhamdu bu ñëwee rek yàlla moo ciy ñëw lu tax ndax moom rek moo ko yeyoo ngir ak matam kon ci moom dañ koy sant ngir sabab ak lu dul sabab dañ koy sant ci lu neex ak ci lu naqari dañ koy sant ci balaa ak ci xéewal ci lu bees lu jiitu même bu musiba dalee doomu aadama sax danaan alhamdulilah ala kulli xaal kon alhamdu moom moo gën a matale ci sababam waaw gën a xat nag ci nañ koy defee parce que hamdu moom ci làmmiñ lay nekk mhm. ak ci xol waaye du nekk ci jëf parce mm-hmm. que du nekk ci macha allah ràññee gu am solo diggante yaamalu ala daawuda shukran mm-hmm. wa qalilun min ibadiya shakur néew nag ci mm-hmm. samay jaam ñooy ñi nga xam ne ñooy sant loolu nag moom borom bi subhanahu wa taala tudd na ko ci ay yeneen béréb ca mooy ni ñiy sant yàlla subhanahu wa taala ñu gën a néew ci doomu aadama yi moo tax doomu aadama mhm. lu bëree bëri day am ay xéewal waaye du ko sant ndax lu mu xool rek lu mu am ci xéewal rek ma ngay xool keneen ku am lu ko ëpp lu ko ëpple bu ko defee mu fàtte moom yi ko yàlla defal ca fekk loolu waru ko loolu moo tax wa qalilun min ibadiya shakur ca mhm. shukur moo nu waroon waaye nag ñii moom ay jaam lañ yoo xam ne ñoom dañoo sant mboolem yonent yi alayhim salaatu wasalaam ay jaam yi santoon yàlla lan innahu kaana abdan shakura comme ni ko yàlla waxee ci nuux waaye noonu itam lañ ko mën a waxee ci mboolem yonent yi ndaxte wa qalilun min ibadi shakur la shakka ne Souleymane ca la ak ñi nga xam ne ñoo gëmoon ànd ak ngi bokkoon ci xalil boobu kon képp wax ne yaa ngi sant yàlla ci say jëf ci say wax ci sa xol bu boobaa yaa ngi bokk ci xalil boobu nee nañ Omar ibnu Xataab mas di dox ci Omar taxawloo ko nekk lu tax ngay wax loolu naka nu nit di ñaane yàlla mu boole ci ñi gën a néew mm-hmm. mu ne ko xanaa jàngoo fi suñu borom ne wax qalilun min ibadiya shakur loolu laaj jublu Omar daal di daal koy bàyyi ne ko ci nekk ñëpp gën dégg alquran yi Omar loolu itam day sant ci gooyeefam ci ak gooyeefam kon qalil min ibadiya shakur loolu lañ ci dégg eh, sëñ bi Cheikh naa nan la ñuy mën nañu lëkkale i'malu ala daawuda shukra mm-hmm. ak lu ñu gisoon ci suñu jotaay bi wees ci suratu an-naml nga xam ni ba mu ne ullim naa man taqattar wootinaa min kulli shay mm. mel na ni dellu nu sant boromam sant boromam ci tudd xéewal yooyu yi ko yàlla defal fete ba sama daahika min qawliha wa qaala rabbi awzi'ni wax mu ngoog shukr baa ngoog indahu ilmin kitab an atika bihi qabla an yartada falamma ra'ahu mustaqirran indahu hada min fadli rabbi am na ak lëkkaloo kon ak lëkkaloo màgg màgg sax loolu ab seetlu la ak génne gu am solo la mm-hmm. Mm-hmm. ci ne li tax borom bi subhanahu wa taala nettali qissat Souleymane mm-hmm. Souleymane dafa boole am alal am nguur ba noppi am diine ñett yu jafe boole xam boo demee ci eh, kii uddatu shakirin wa daxiratu sabirin bu ibnul qayim dafay muqaarana kan moo gën al abdu shakir wala al ganiyu shakir wala al faqiru sabir wax ji bëri bëri ci waxi borom xam-xam yi moom lim gën lim mujj lënkal mooy ki ci gën ragal ñoom ñaar yàlla rek mooy ka waaye lenn ci borom xam-xam yi dañoo wax ne am xinaa ba noppi ànd ak sukkur mm-hmm. mën naa am mu gën a jëfee mm-hmm. sax nekk faqir ànd ak sabr ndax boo nekkee xani mm-hmm. li gën a bëree bëree maanaam yi la xam ne moo lay fabbi fabbi kaay day bëri ci sa kanam moo tax mu jafe moo tax borom bi subhanahu wa taala kañ Suleymaan ndax yàlla may na ko ba noppi teewul may googu fàbbiwu ko ci la xam ne moo ko waroon mu def ko na mu wër ba sun borom subhanahu wa saxal ko ne maanaam lam ko def la lépp def na ko mm. niamal abdu innahu awwab kenn ci borom xam-xam yi dafa wax ne man de mm. maa ngi ñaan yàlla yàlla may mu wërsëg bu bëree bëree bëri mm. may maatam aafiya mm-hmm. ak ak ak maanaam euh, wér daal mm-hmm. morom ji waaw mm-hmm. ah, lu tax ñaanoo ñi am balaa ëllëg yow ma xiyaam ñooy ëpp ay tuyaaba ak mu nekk ko déet damaa jàng ci alxuraan ñaari yonent kenn ki suñu borom tudd balaam bu mettee métti bu ne ni amal abdu innahu awwaab ki ci des yàlla may ko nguur goo xam ne ko keneen bu ko ni amal abdu innahu awwaab léegi bu mujj bi laa mooy wane ni fenn fu nekk rek ak ubudiyaam borom bi subhanahu wa taala la eh, defal rek am na ubudi am na jaamu goo xam ne moo ca war a war wax ni boo ci taxawee rek bokk nga ci ñi gën loolu delloon na ma tuuti ci eh, muqaarana gi nga doon moom Ibnul Qayyim def ah. ak natiija bi mu am ah. nur na ni eh, Ayub ak eh, Souleymane ah, kenn ku nekk am na taqwa waaye kenn ku nekk ba taqwa ji amee ñoo bokk fu ñu arrivé mooy ne amal abdu indahu wa est-ce que est-ce que ma sha allah falamma qadayna ma dallahum ala mawtihi laa yooju ma ci taw allahu akbar ah foofu nag mooy dogal ba egsi na dogal moom bu xësee egsi malakul mawtu moom bu ñëwee bu bis ba agsee mm-hmm. tàggootul kenn mm-hmm. rusul kenn mm-hmm. ragalul kenn yërëmul kenn saa sa rek ak fam la fekkee tam noonu la koy defee Suleymaan mel na ne kon dee bett na ko ndax mu ngi toogoon ca <coughs> fam leen doon defarloo ay paleek ay jaamukaay yàllaak ak yeneen ak yeneen ak yeneen toog di di leen superviser di xool <coughs> di saytu liggéey bi fa la ko malakul mawtu fekk mu toog ca chaise ba yore aw yat eh, samp ko nga xam ne eh, maanaam di sukkooti ci daal comme ni ko nit di faral defe boo toogee yore saw yat ndekete yoo faatu na jinne yëgul ne faatu na ñu continuer ñoom di liggéey rek ndax ragal ko kun ko ragaloon di liggéey eh, diggante bu yàgg ndax diggante boo xam ne max mën naa dugg ci ab bant ba max ko ba bant bi yàqu loolu nekkul diggante bu ndaw ba mu yowee nag nag ba faatu nag ba ba daanu nag mm-hmm. ñu ñëw xool gis ne yëngatuwul ñu ne ñun koy buñ xamoon lii daw nañ bu yàgg mm-hmm. foofu daf ñuy delluwaat tuut ci Souleymane ak ay liggéeyu rëy yu mu def mm-hmm. ci dundam bokk na ci tabax gum tabaxaat baytul maqdis baytul maqdis euh, nee nañ Daawud salaam di baayam moom moo ko digaloon na ko ne tabax jàkk ñoom boo demee ci seen làkku perse wala làkku abriya xiikal lañ koy wax xam nga làkku eh, eh, abriya dafa nuroog làkku arab ñoom xiikal lañ koy wax xiikal mooy jaamukaay yàlla bu mag ñun ñu koy wax ci arab haykal léegi sax haykalu Suleymaan da ngay dégg ñu koy wax ñu ne ñoom moom lañ bëgg a tabaxaat waaye moo nekkoon seenub jaamukaay yàlla rek maanaam comme ni ñuy wax ñun masjid nasaraan yi di ko waxee kanisa ñoom la ñuy waxee xiikal ñoom Suleymaan tabax na ko ndax Daawud diggante bi nga xam ne ci la nekk nguur xañ na talagul woon tabax yu mel noonu maanaam mi ngi nekkoon ci taxawal dawla bi muy état bi ba mu am doole ak réew mi ginnaaw bi nga xamee ne sonaloon nan ko ay noonam sonaloon nañ ko daanee daaneeloon nañ ba amul woon benn nguur ba yooy taxaw nag ci la génn àdduna la kii ñëw war a nag eggale liggéey bi wara tabax nag yeneen yeeg yi nga xam ne moo des ci euh, dëkk bi ca mu aajowo ko mm-hmm. bokk na ci nag mu tabax loo ko jumaa maanaam ci suñu waxin daal muy heykel boobu borom xam-xam yi wax nañ ci ay wax yu bëree bëri parce que Euh, li wér bu dee baytul maqdis bi lañ ci jublu du ne Suleymaan moo ko njëkk tabax am na sax ñu ne aadam moo ko tabax am ñu ne malaaka yi moo ko tabaxoon aadama ñëw feddilwaat ko comme ni mu ko def ci kaaba gi ci yonent bi alayhi bu wér nee na bi ko bi ko kenn ci saxaaba yi laaje defe naa Abu Zar la xadis Abu Zar mhm. ne ko la ban jàkka la njëkk tabax ci kaw suuf mu ne ko al masjidul mu ne ko ban moo ci topp mu ne ko almasjid al aqsa mu ne ko lan moo dox seen diggante mu ne ko arbain ci benn riwaaya arbain sana kon loolu yàgg la kon danoo ñëw rek fàggaat fàqaat ma ci ibrahima alayhi salaam bi muy ñëw di tabaxaat kaaba gi dana wax ne ca xawaayidu ca dafa fekk ay xawaayid ca la ko sof yaa di yëkkati mm-hmm. waaye baytul maqdis tam noonu la yàggee moom tam noonu la mel waaye ah daawud dafa nekkoon ci yéeneem mm-hmm. mu taxawaat taxawalaatal ko far mën koo def ci nguuram mm-hmm. mu dénk ko nag Souleymane nag eggale yéen a joojee mhm. mu ne kon tabax boo xam ne te bu mag la mhm. bu rëy rëy la mhm. waaye nag ginnaaw bi comme ni ma waxee ci histoire banu Israël nga xam ne ginnaaw bi Souleymane génne àdduna danoo toppaat seen bànneex euh, ba xàccali ko dekk ñaari euh, maanaam dëkk ñaari réew waa Ashuri yu ni ñëw dal ci seen kaw rey leen jël ci ñoom ay kii lakk baytul maqdis Euh, baabil yoon yooyu itam def na noon ñëpp li ñuy wax asabil baabil yi nga xam ñoo nen sax jël yahud yi nga xam ne ñoo féete woon janub mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkk ñoom la seenum réew njëkk a daanu ndax ñoom ñoo tànnoon nekk ci kàccoor ak topp seen bànneex ñoom ñoo njëkk a daanu mm-hmm. ñoom baabil yooyu ñoo ñëw muy fursi yi mm-hmm. rey ñan ca mën a rey ña ca des ñu jël leen yóbbu leen baabil ñu nekk fan ay ay jaam mm-hmm. ay at yu bëree bëri ba beneen buur boo xam ne moo mujj ñëw yërëm leen bàyyiwaat leen ñu bisiwaat euh, yahud yi danoo seen histoire dafa dafa yàgg metti ma léegi nag diggante boobu nag maanaam màbb nañ ci baytul maqdis ak lakk ko ci ay yooni yoon ba ci suñ jamono jii nag fii ne ñoom dañoo wax ne dañoo bëgg a tabaxalaat tabaxaate heykal bi te boo xoolee histoire l'islam ak ni mu ubbee euh, suuf soosu ak suuf seetam ña nga xam ne ñoo fa njëkkoon nekk jundoon nañ ko suñ jataay bu njëkk du ne yahud yi la ndax wax na ne ñetti junniy at fekk na lu jiitu masiix mhmm. fekk na euh, am ñu fa nekkoon ñun daan wax alfiniyun ginnaaw bi alkanaani yu nekk fa ginnaaw bi ñi jóge Palestine ñëw nekk fa bi bi mu desee mille cinq cent ans ci milaadul Isa ci juddug Isa alayhi salaam ginnaaw bi la yahud yi ñëw foofu ci la Moussa doog a jéggi géej gi ñëw kon duñ fa cosaan mhm. duñ fa cosaan kon ñaareel bi mhm. l'islam dañ ko ubbi mhm. dañu ubbi baytul maqdis Euh, l'islam seen seen seen jokkante ak Rome ndax jamono yooyu romain yi ñoo moom woon wet googu lu mhm. teel la ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ghazwat Mu'ta diggante jullit ñi la woon ak romain yi mhm. <coughs> ci atum juróom-ñetteel atum juróom-ñeenteel ghazwat Tabuk yonent bi alayhi salaatu moo ko jiiteel boppam mhm. waaye mujjul sotti nan nan nan ko bëggee woon yonent bi alayhi salaatu wasallam dellusiwaat daal di waajalaat beneen xare ci njiitul Usaama waaye bi mu daataan dem mu génn àdduna yàlla dogal mu génn àdduna sallallahu alayhi wa sallam waaye Aboubacar eggale yéen a yonente bi alayhi salatu wasalaam Usaama dem yooyu yëpp taxagul woon mu ubbeeku waaye ci jamonoy Aboubacar am na xeex bi njëkk am foofu muy xeexu ajnaadin ci eh, eh, njiitul Xaalid ibnu Walid ci la ab laalante bu njëkk am diggante romain yi ak jullit ñi jullit ñi gañe leen waaye ba tey taxul mu sotti ci jamonoy Amru ibnu Xattaab ci atum eh, fukk ak juróom-ñett ci gàddaa gi ci la nag Abu Ubayda parce que Abu Abu Amar ibn Khattab xam nga bi mu ñëwee dafa soppi mhm. général bi jiitoon armée bi muy Xaalid indi fi Abu Ubayda mhm. Amar ibn Jarrah mhm. moom nag moo ubbi foofu ci marakatul Yarmouk bu siiw boobu jóge fa ñu dem euh, baytul maqdis xeex ak euh, maanaam wër ko gaw ko boobu jamono yooyu sax nasaraan yi ñoo fa ëppoon doole yahud yi biñ ko gawee lu tolloog ñenn ñeenti weer ñenn ñu wax lu ëpp am ñu wax ñu yees ci lañ ne nag léegi ñoom dañoo bëgg a def sulxu ak jullit ñi a mooy nekk amirul muminin ki jiite jullit ñëpp mooy ñëw Umar Xattaab nangul leen loolu jóge Madina ñëw bilaadu Shaam dem ba ca ñoom ñu def al wasiqa al umri yi comme ni ñu koy waxee mu nekk a jàngat la sax jullit ñi war nañ ko jàngaat xam la nga xam ne léeg-léeg mooy feeñ ci photo yu bëree bëri ñu jàpp ne mooy masjidu aqsa ci bokkul danoo nuróo mais bokkul nuróowuñ sax maanaam danoo xaw a denn fu nekk waaye bokkul bii mooy bi nga xam ne moo gën a rafet ab xubba bu rëy rëy beneen bi nag mooy boo nga xam ne dafa néew doole loolu day sànn ñàkk solo ci gisiin ci am solo loolu nag ci makkaana ci lislaam ndax mooy ñetteelu jàkk ji gën a rëy ci sharia ci ci lislaam waaw kon euh, ala kulli xaal yooyu bokk na ci nga xam ne Souleymane amal na ko injaaz ci ay injaazaatam waaye teewul nag moom ak mu jëm mooy nii la faatoo mhm. euh, moom Souleymane euh, bi mu gaañoo gaañu na lu yàgg yëgul ne dafa gaañu mhm. lu dul ba mu daanoo mhm. jinne yi ñoom dañoo daal daw xam ngeen ne ginnaaw bi julli junne waaw bi bi nga xamee ne dem nañ ba xam ne faatu na mhm. ñu tuumaal ko ne eh, da doon jëfandikoo ah, njabar moo taxoon mu mu mu mu mu yilif ñu mhm. eh, loolu ngay dégg ñu naan xaatamu Suleymaan ñu ah. tuumaal ko ko tuumaal ko yu bëri bëri ak yoo xam ne xëy na waxtu yi du ko mate wa ma wa ma kafara Suleymaan walakin shayatina kafaru yuallimuna an-nas as-sihr yaa ngi may fàttali lu lu yéeme lu sëñ Xaadim Jaara Rachid wax ci xisat mm. Suleymaan mm. di junj ni nguur gi li muy rëy ma xar la kon nguur gu dul nguur bu borom bi subhanahu wa taala waaw nguur yëppay daan foq waaw nguur nguur yëppay foq loolu moom dëgg la macha allah fala ma xar la tabayyana junun allaw kaanu ya'lamuuna al-ghayba ma labisu fi al-'adaabi al tënk nag Cheikh naa lañ mën a tënk comme ay tomb yoo xam ne mën nañ koo jëriñoo ci liñ jot a nettali ci qisat Suleymaan ci suratu Saba waaw bokk na ci hmm. eh, tënk yi nga xam ne bëgg nañ ko ci tudd hmm. mooy yonent yàlla Suleymaan ab yonent la mm-hmm. kon mm-hmm. li nga xam ne mooy mission ci kaw suuf mm-hmm. mooy saxal njubug yàlla gi ci la ci jiitu di wéetal yàlla subhanahu wa taala taxawal shariatu yàlla subhanahu wa taala moo tax doona wax ne Suleymaan loolu xadis bu wér la mi ngi sunan abi daawud ak sunan nasaa'i eh, su ma juumul abu hurayra moo ko nettali yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne Suleymaan dafa ñaanoon yàlla ñett bi muy tabaxaat baytul maqdis yàlla nangul ko ñaar yi mhm. yonent bi ne maa ngi jortu ñetteel bi yàlla nangul ñu ko ñun mhm. ci ci ci béréb booba uh-huh. bu njëkk bi mooy uh-huh. xukman yuwaafiqu xukmahu maanaam uh, atte boo xam ne dafay dëppook atte bi yàlla muy maandu yàlla may ko loolu uh-huh. mu ñaanaat ko nguur goo xam ne du am keneen ku ko am ginnaawam wa habli mulkan laa yanbaghi li ahadin min ba'di yàlla may ko loolu mhm. ñetteel bi mu ñaan ko képp koo xam ne jóge nga sa kër jàpp ñëw julli ci jàkkam jooju mhm. yàlla jéggal la say bàkkaar nga mel ne koo xam ne yaa ngi delluwaat euh, comme mhm. ne la sa ndey jure woon daal waaw ko yow mi wala dati umm nee na borom bi subhanahu wa taala ko boobu waaye ñu ngi jort yàlla nangul ko ñun xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñoom seen objectif yi gënoon rëy ak lu am am alal lu am am mooy nu ñuy taxawale nju yàlla gi njubug yàlla gi subhanahu wa taala kaw suus mm-hmm. tasaare tawxid loolu moo wutale euh, civilisation boo xam ne dafa tegu ci diine mm-hmm. ak boo xam ne dafa tegu rek ci àdduna yi kese civilisation yi tegu ci àdduna yi kese lan moo ciy mujj mm-hmm. nga dégg nit ñoo xam ne dañuy am alal ba pare gën a yées ñëpp ci jukko ci melokaan nga dégg ñu ay ay réew yoo xam ne dañoo am alal ba nga xam ne li ñu yore ci bele bu ñu ko indi ci dëkk yu ñàkk yi ñëpp mën cee am ñu jël bere bi dem sànni ko ci géej gi ndax nee nañ ko buñ ko buñ ko mayee nit ñi ñàkk ñi mhm. kon prix bi day wàcc loolu day am loolu mooy civilisation bu bees bi ñu dem ba ngay dégg ñu ay borom alal ñuy financé ay alal mhm. ne dañoo war a wàññi àdduna si nit ñi dañoo bëri te léegi arrangé wu ndax day tax maanaam ressources yi dutu jar dutu kii ba ngay dégg yi nga xam ne moom lañ ciy wax ci ay coow yëpp mhm. yooyu yëpp lan moo ko mën a indi mooy civilisation boo xam ne ci diine ci ngëm yàlla mhm. nga dem ba dégg nit ñoo xam ne ñoom nin mel mhm. bëggu bëgguñ ko mel góor a a koo xam ne dafay am lu muy wax diggante góor ak góor muy ànd wala diggante jigéen ak jigéen juy ànd jàpp ne loolu lu normal te dafa war a am ci ñooñ dana war a am seen liberté mm-hmm. nguurug yàlla moom nguur gi nga xam ne dafa tegu ci wéetal yàlla mm-hmm. ak ci ragal yàlla mm-hmm. ak ci taxawal diine yàlla subhanahu wa taala du mel noonu ci Souleymane nguuram gi wane na ko bu dee puissance rek la ñuy wax amul nguur gu am puissance bu toll nii dëgg la waaye teewul nguur la goo xam ne ak puissance bi li muy rëy lépp ak mm. alal ji li muy rëy lépp ak mm. doole ji li muy rëy lépp dafa tegu ci eh, maanaam ndigalul yàlla tënku ci ndigalul yàlla ak bàyyi tere yàlla moo tax mu nekk nguur gu rëy gu yàlla saxalaat ci alquran ñu ko war di ko del jàngat ndax doomu aadama yi toujours nguur ak alal ak yooyu daf leen a yitteel loolu bu la yitteel te rek ñëwal nga jàng Suleymaan ak nguuram nga allahu akbar macha allah am na eh, la woon kon fi nit àgg ci daraja ci baax ndiggante ak boromam amoon na ko waaye mmh. taxul tax na waaye mmh. teewut mmh. xisa bi fesal na ni xamul xayb junne yi li ñuy kiimaane kiimaane ci jommaleeg yooyu xisa bi saxal na ne xamul ñu xëy bu hmm. ndax génn àdduna te xamuñu ko hmm. doon na ne xisa bi tamit am na lu mu jàngale ci taw jàngale na lu bëri ah. parce que doomu aadama léeg-léeg eh, ko lu ko raw hmm. eh, yéem ko rek day jàpp ne lii moom nekkatul nit loolu moo dal ñu bëree bëree bëri ci seen i njuumte te ñani màggal ñu dem ba jox leen cëru yàlla fekk la ñuy rëy lépp kat yàlla moo leen jox cër yooyu rek dëgg la dëgg la waaye teewul ay nit lañ gis nga waa Youssouf. Mhm. Youssouf alayhi salaam ak taal bu ko mhm. yàlla mayoon nga xam dafa jéggoon doyo mhm. bi ko jigéen ñi gisee ba dagg seen loxo yi dañ ne maa haada basharan kii du nit. du nit. Euh. in haada illa malakul karim moom koy leneen lan lay tudde waaye dootul la tuddee ti nit <laughs> looloo itam moom la yàlla bëgg a wane nag ci ne doomu aadama ak nu ma di toll tam il faut mu wane ci ak doomu aadama ak doomu aadama parce <laughs> que ndax Souleymane xamul ne sax nguurug Saba am na foofu ba hut hut ñëw di ko nettali mm-hmm. am picc jinne mm-hmm. euh, yi ak li nga wax li li leen yàlla may ci kàttan nga xam ne dañuy dem fu nekk gaaw lool di ah, di ñu gis te ñu du leen gis ku ci am dara umpatu la sama rawaan yi na ma naan waaw waaw mu ngoog ñoom ci boppam Souleymane gaañu na lu yàgg-yàgg nekk seen wet ci yëgu nag sax gaañu na ñu ne lu nekk ñu koy def guddeeg bëccëg du noppul falamma xarra tabayyanat al jinnu an law kaanu yaalamuuna al xayba maa labisu waaw ñoom ci boppam ñu ne buñ xamoon ne buñ xamoon xayb kon duñ duñ duñ des ci liggéey bu métti bi diggante bu yàgg bi ndax lool lu yàgg la <laughs> lu yàgg la fii max ngiy lekkee loolu ba muy daanu nekkul diggante boo xam ne bu gàtt la hmm. macha allah cheikh naa xam naa waxtu yu toll na foo xam ne daanaka toll nañ suñu minute yu njëkk hmm. yan kàddu nag ngay euh, tëjee incha allah ci xisat Souleymane bi ñu jàngat ci suñu waaw xisat Souleymane lii ñu ci wax lépp sax daanaka mën nañ ne parti la ci rek. Mhm. teewul des na ay jawaanib. Mhm. waaye mën nañ ne jaar ci am solo yu bari mhm. yoo xam ne jaar ko ci. Euh, mu nekk ab yonent bu màgg boo xam ne borom bi subhanahu wa taala daf daf yi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala dañu koo nettali ndax yàlla daf rusul faddalna baadahum ala baad minhum man qasasna alayk wa minhum man lam na faneen mu ni minhum man qasas na waaw waaw kon ci beneen la man man kallama allah minhum man kallama allah waaw ci man qasas na aleyk minhum man lam naqsus aleyk waaw kay foofu laaj bëggoon a ñëw am na ñoo xam ne yàlla moo nu wax seen i mbir bokk nañ ci ñi yàlla wax seen i mbir ci yonent yooyu mhm. yonent yàlla Suleymaan wax nañu turam wax nañu dara ci ay mbiram kon loolu war nañ koo jàng mhm. rawatina ci jamono ji nga xam ne wàllu nguur wàllu alal wàllu matérialisme yu mel noonu dafa dem ba tasaaroo ci bëti nit ñi mhm. ba daanaka loolu rek mooy li gën a rëy ci ñoom jàpp nañ ne loolu mooy ñëpp am na ñoo xam ne daanaka jàpp nañ ne booy wax ci diine a mat ak la kii gi mel noonu xamul ni bu dee alal bu dee ci mhm. bu dee ci lépp moo moo ku mas a amati doole wala kuy amati alal wala kuy amati puissance waaye teewul mu boole ko wéetal yàlla subhanahu wa taala nangul mhm. yàlla subhanahu wa taala tënku ci ay bàyyi ay loolu daf ñoo war a dellusiwaat ñun jullit ñi alquranu karim li ci nekk lépp ci ay qisaas ci ay awaamir ci ay nawaahi dañ ko war a jàng eh, jariñu ci xam li nga xam ne moom la borom bi subhanahu wa eh, ci téeram bi ci ay njariñ ak eh, ak ak i ndigal yoo xam ne lépp njariñ lay doon ci ñun mhm. Mhm. kon qissa la boo xam ne bu rëy la bu màgg la mhm. bu bëri ay njariñ la bu mën a delloosiwaat nit la mhm. buy mën xamal tam nit dëgg-dëgg àdduna ndax mhm. àdduna tam lu mu rëy rëy rëy ko fi bàyyi rek comme li nga xam ne mhm. moom la Souleymane gaañowul sax ci kaw bu lalam ndeysaan mu ngi daanoo gaañoo ca béréb ba nga xam ne fa ba nguur googa la ci nekk ci moyen yëpp ñu def ni ko ci ku lu neex yàlla comme ni Souleymane defoon ndax nguuram gële muy rëy lépp lépp da ko jëfandikoo ci lu neex yàlla subhanahu wa taala ci jihaad ci tabax ay bérébu jaamukaay yàlla ci eh, eh, àtte ci dëgg ci tasaarek mbaax tasaarek jub digle lu baax teg digle lu bon Souleymane nag am na tuuma yu bëri yoo xam ne boo demee leen yenn yi sax toxal nañ ko ma al asaf ci téere tafsir yi yenn téere tafsir yi yoo xam ne jaaduwul ab jullit di ko gëm wala sax mu koy tasaare ci ab yonent ci ab yonent bokk na ci li ñu wax naan daa gisoon soxna Eh, général am mu mhm. rafet mu bëggoon ko takk mhm. fexe ba mu yónni ko ci benn xare ngir mu xeex ngir mu takk ko mhm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo da ngay dégg ñu koy wax yooyu yëpp nekkul lu wér Suleymaan yonent la la yonent yàlla subhaanahu wa taala tagg ci alquran karim yonent bi alayhi salaatu wasalaam itam tagg ko tudd ci moom ay xadiis yu wér kon dañ ko war a eh, maanaam dañ ko war a màggal xam ne ab yonent la xam ne xam ne dafay wax di ko di ko tuumaal yoo xam ne wérul ba ñu dem ba koy tuumaal daan ab xaatim di ko di di ko tëkkaleeg loolu loolu wax dëgg yàlla du mm-hmm. ñaaw la mm-hmm. yooyu nga xam ne ay bokkaale la mm-hmm. ay ju nekk diine la ndax boo jëlee alquran karim dëpp ko jël ay numéro bind ci jël ay turi jàmbur bind ci biir ba nëpp di ko lëkk ak yonentu yàlla boo xam ne la mu doon woote lépp ci wéetal yàlla la kon loolu yaa ngi def bàkkaar bu rëy yaa ngi def njob bu rëy boo xam ne bu ëllëgee da sa kanam borom mm, loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mm. Suleymaan mm. eh, laalewul taqawul dara ci luy nuru ak njabar comme ni ko yàlla waxee ci alquran karim wa ma kafara Suleymaan walakin ash-shayatina kafaru yuallimuna an-nas as-sihr macha allah jazakumullah xeyran eh, sunu waxtu jeex na gan kàddu ngay dénk téléspectateur Tawhid TV à transport alhuda wala yéen kàddu ndénkaan nga am yoo xam ne mën nga koo jox alhuda ci dox bi participer nga participer nga ci ñaari yoon mën naa am suivre nga leen ci jotaay alhuda hmm. kàddu yi ndénkaan lay sàkku man en tant que koo xamante ni mi ngi doxal émission bi ci ni muy doxee noo xamante ne incha allah dana gën danañu gën a mën a jariñ ci yoon bi jazakumullah xayran en tant que euh, koo xam ne moo ñu jiitu ci ci tool bi gën ñu cee yaatal <laughs> euh, jazakumullah xayran yow moom ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gën a ñaanal yàlla yàlla dëgëral la mm. ndaxte mbokk mu nga moo xam ne ku bëgg lu baax rek bëgg lu baax rek mooy li nga xam ne moo la euh, moo la yitteel mm. ak tasaare ak njub yàlla na la yàlla subhanahu wa taala boole ci allahumma amin ya rabbi nga xam ne dana teg dana barkeel seen i wax barkeel seen i kàddu euh, di gën a soññ rek mbokk yi mhm. ñuy seetaan ak suivre mhm. seen yu mel nii ndaxte yii mooy yi nga xam ne moo lay jëriñ mhm. internet bi lu nekk ci biir waaye nit ki dafa war a tànn xam ni nga xam ne moo koy jëriñ dundal xolam di naatal xolam mu cay dugg di ca jëriñu di ci taataan kon loolu mooy li nga xam ne moom la nii dénk ñi nga xam ne ñooy suivre seen bu am solo bii di Tawhid TV ni nga xam ne itam euh, ñu ngi leen di a soññ yéen itam ngeen gën a Euh, farlu gën a invité ay boroomi xam-xam yoo xam gën a ñëw di gën a riisal incha allah seen jataay bu am solo bi incha yàlla na ko yàlla yombalal mm-hmm. euh, ni muy doxee lépp nag wax dëgg amuñ ci dara lu ñuy lu benn gendeeku buñ ci am ndaxte macha allah buñ ci gis rek mm-hmm. dañuy yàkkamtee gisaat beneen ndax nam tëddoog nam amee solo di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla dëgëral leen dëgëral mm-hmm. ñi moo leen ñi nga xam ne ñoo nekk ci chaîne bi Eh, dëgëral itam seen techniciens yi. waaw ñëpp yàlla defal leen tawfiq. Uh-huh. ak ñi nga xam ne ñoom moom seen beeg yàlla defal leen tawfiq. bina leen tiyaaba. kontaan nañ ci yéen lool. leen ñaanal yàlla yokk leen tawfiq. alhamdulilah yéen itam ngeen bañ ñoo fàtte ci ñaan. incha allah barakallahu fikum asalaamaaleykum. jisaakumullah xeyran jërëjëf Serigne eh, docteur Serigne Iliman Ndiaye. jisaakumullah xeyran mbokk yi nga xam ne yéen a jëloon seen waxtu doon topp seen télévision Tawhid TV. te doon wettalikoo seen émission bi di Al Huda ma fàttali leen mooy émission bi yittewoo téere borom bi subhanahu wa taala nu doon jàngat xisatu Suleymaan rawatina lëkkale ko ak suuratu namli ak suuratu Saba seddale woon ko ci ñaari jotaay yoonu wi di woon sunu jotaay ñaareel incha allahu rabbi lu jiwa jeexul jugu fa ba tey ndax am na yeneen i tomb ak yeneen i saar ak yeneen i laay yeneen i yoo xam ni mën nañ cee bokk ak uh, ay jotaay ay waromi xam-xam rawatina sëriñ docteur sëriñ Ilimane Ndiaye ndax yëg nañ sunu bopp bu baax rawatina ñu doon seetaan ci xisatu yonent Yàlla ak njëriñ ci mën a jëlee seen mbokk loon Abou Taha Mouhamed Alioune Guèye ci seen émission Al Huda dig daje incha allahu aljuma ji di ñëw asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu wa hada dikrun mubarakun anzalna أفأنتم له منكرون